13 minutes de vérité au plaisir de vous retrouver sur Sénégal 7 TV ci seen programme de la semaine xam ngeen ni nag euh, mbégte bu rek la ñuy am saa su ne di leen accompagner du lundi au jeudi ci li nga xamante ni moom moo di euh, plateau yu ni mel waxtaanee li nga xamante ni moo di ponk yi gën a fas ci actualité moom la ñu fas yéene waxtaan ki nga xamante ni moom moo di suñu invité du jour di Thierno Diop chroniqueur grand Thierno. waaw c'est toujours un plaisir di la nuyu te di nga nuyu. ah merci ñun tamit euh, dañuy am euh, mbégte saa yu nekk di ñëw euh, ci sa plateau yow. Mhm. xam nga ñaan peccu liir bu neexee ndey ja ci wagg ya. dëgg la vraiment sa protocole questionnaire. Mhm. donc ni nga ñuy guidé ak say relance. Mhm. daf ñuy dimbale ñun tamit saa ñu demee ba war a gàkk. dafa mel ni ni ngay posé question daf ñuy gàgganti moo tax à chaque fois ñun tamit eh, dañuy am plaisir di ñëw fii. et heureusement ñi ñuy seetaan tam ar bu ñu fi jaaree feedback bu extraordinaire lañ ciy jox. ñi ñi am mbégte ci Sénégal set seen liggéey ci réew mi seen taxawaay ci élargir démocratie Sénégal à travers presse. Mhm. moo tax euh, ñiy jéem a naxasal presse vraiment war nañu xoolaat seen bopp parce que liggéey bu am solo bi ngeen di def. xam nga mhm. damay faral di ko wax Ivoiriens ñoo koy wax si on mhm. fait pas blabla on fait boum boum. <laughs> mooy werante lu mu tàng tàng nit ñi mën a nekk ci plateau yi xaaju lépp mais waxtu wax la rek léegi nag bu ñu wax moom bu jeexee rek. Euh, leer moo ciy ñëw te loolu ñaanuñ ko yàlla moo tax mhm. daal may ñaan euh, président Bassirou Diomaye Faye mhm. fexeel ba dimbale presse bi mhm. parce que presse bi yow xam nga ne yow président Bassirou Diomaye Faye du bitig boo xam ne bii da ngay jëndee ñaar fukk di jaayee ñaar fukk ak juróom nga xam ne da nga ciy am bénéfice ñëpp xam nañ ko presse mission man sacerdoce la gën a nekk lu yàgg ci Sénégal presse mécénat moo ko yor maanaam ay ñu ay waay baax yoo xam ne dañuy dimbale ay baax ay bàyyi defal yàlla ñooy ñëw daan fekk journalistes yi fi ñuy liggéey ah, bàyyi fa dara loolu la Sénégal yàgg a fonctionné presse Sénégal lu yàgg yàgg mécénat ñoo xam ne kenn xamu sax pour rek permettre journalistes yooyu ñu am seen indépendance parce que dafa baax ci réew mi daal donc Sénégal set nag bokk ci këru yéenekaay yooyu nga xam ne comme ni ma ko waxee dafay yaatal démocratie Sénégal mmh. ñoom ñoo tax Sénégal am na ñetti alternance démocratique mmh. ci diir bu gàtt loolu li nga koy gis Afrique bëriwul te pourtant euh, coow yi yeneen coow yi am ci yeneen réewu Afrique yi ay guerre civile ay coup d'état fii mosu fi am mm. parce que presse bi dafa mos a taxaw taxawaay sentinelle mm. léegi nag euh, yenn saay saako boo gis am na ay soxla nag moom ñu ngi dund ay jafe-jafe yu tar sax amul sens amul sens beeg yenn compte ñu tëjoon waaw également gis nga tamit ay organe de presse nga xamante ne tey jii tëj nañ seen bunt amul sens gis nga dem démb maa koy wax ci benn télévision bu mag fii ne danger sax euh, presse nga fexe ba naxasal presse gis nga boo ko naxasalee monde liberal lañ nekk de ay ay tubaab yu am doole ñooy ñëw ci guerre géopolitique bi ak guerre yi am fii tey ci géopolitique bi Russie fii français yi fii mais benn tubaab mun na ñëw jël penda def ko prête non xëpp ko ay milliards bu baaxee xëpp ko ay milliards léegi mu ubbi groupe de presse doo ko mënal dara doo ko parce que ñoom dañuy am ay ONG ay droits de l'homme yu nekk seen ginnaaw doole leen mënal dara sinon da ngay sa bopp riir hmm. donc nga bàyyi ay nationaux ay sénégalais. comme ni ñu ko mos defee yore presse bi moom moo gën parce que loolu bis boo ko defee rek gis nga presse bi bis bu fi jógee rek bul defe ne la nature a horreur du vide xam nga Macky Sall bi mu jàppee boppam nee nee dootul malaaka mu may màllarti rey opposant yëpp Karim Wade Khalifa yëpp loolu andi Ousmane Sonko la nature a horreur du vide la nature a horreur du vide ñoom war nañ jàng ci loolu ñoom tamit. mais ñun aussi tamit xam nga Macky bi mu faloo jël journal si mag yu bëri teg ci koy xalamal. Mm-hmm. léegi malheureusement ñeneen ñi ingrat lañ ko mel ni Thierno bi moo daan toog Walfadjri plus de vingt émissions fu Tafa Diop toogee di Pape Sané toog ne ñi jël ay ngaddi maami xeer di di di dool ci nguuru Macky Sall boobu biir présidentielle 2019 am na plateau boo xam ne moo fay jugee damay defee dañu may agressé ci yoon bi dégg ay xaaju guddi ngay jugee foofu boobu boobu ñu bëri ñu ngi faral Macky Sall mais après li ñu bëgg lañ dul def dañ dul ànd ak Pastef loolu rek la yi mere xam nga. mais grand ndax tamit loolu yoon la tamit. ngay taxaw sa groupe de presse doo sàlloo ak impôt te yaa ngi koy dagg say employé. non c'est un faux débat exonération fiscale lu tax mu am ñu ne nit ki dafay dugal benn matériel boo xam ne réew mi da koy soxla dañ koy baal impôt la moo tax zone franche am zone franche bu ñu ko defee statut zone franche ñu joxal ko yenn entreprise yi ñuy ñëw fii parce que mu saa traité benn dossier comme Pfizer américain yi laa doon wax ak bi may bind dossier Pfizer Dakaractu 2018 liiral article bi ku may lire nii mën na tàppe Google Pfizer pris la main dans le sac gis nga nga dem puissant yooyu noonu bi may wax ak ñoom Pfizer Sénégal dañ cee xeeb seen bopp ne ma waxal ak tubaab tubaab bi ne ma nu mu tuddati damaa nekk Noël xam nga tubaab dafa fonk Noël mooy que non votre temps n'est pas le temps du journaliste je veux des réponses instantanées yeekeen donc léegi léegi damay def sama article dégg après tubaab bi tubaab bi kii ma pend nu mu tuddati ci saa si mu jox ma réponse Pfizer laa la wax de multinational multinational multidimensionnel dégg nga parce que xam nga lu tax dañoo amul fi statut zone France ça leur fait des euh, Sénégal dafay am link ak Pfizer Luxembourg Luxembourg xam nga boo ko déggee rek optimisation fiscale ngay dégg ak yooyu ni ñu rawalee xaalis ak Ousmane Sonko boobu la taxaw assemblée nationale premier ministre Luxembourg ñëw fii muy dénoncer convention bu ñu signé assemblée ne bu falee dina ko dagg réalité état du loolu de pourtant am na multinationales yu bëri yu nekk fii nii yoo xam ne ñu leen di defal ay facilités yu bëree bëri tudduñu leen mais yaa xayti mu laan ay 40 milliards buñ baal bi yaa xayti mu laan soori wat a payiti euh, lu ci la ah ñi si affaire yi Euh, la mooy doole bi ñu jox ni RTS sax loolaa comprendrewul il faut libéraliser monde libéral lañ nekk il faut libéraliser doole bi ñu jox RTS dañoo war on doit prendre RTS jox privé bi ñu am dara parce que pourquoi état di jël doole boobu yëpp di ko jox RTS ñuy defaat ko seen télé Pastef tey di recruter ay ñoo xam ne chroniqueurs yoo xam ne ay journalistes yoo xam ne xëy na dem la ñu doon xalamal. parce que peut mooy suñu chaîne nationale. nga ne mooy suñu chaîne. nationale la chaîne mère aussi. mais ça n'a jamais été waaw waaw ci tur ci définition chaîne nationale la mais RTS ni muy liggéey toujours nguur gi fi nekk lay jàppale. Ah, nguur gi fi nekk lay jàppale depuis Abdou Diouf. ci naka. mais tel va su mais quand même. RTS ngay wax RTS bu tey bi gisoo ci pourquoi Ousmane Sonko doon ko dénoncé. RTS bu tey bi gisoo ci rupture. non xalaatu ba ko sax xalaatu ma rupture pour man ça va être pire que sax par les régimes précédents comparativement au régime précédent Pape Alé Niang boo xam nga bëgguma di tudd tur c'est que boo ma boobu rek damay tudd tur dañuy defee damaa soxor maa tey sax soxor léegi mais mais mais mais xam nga mais kii ba quoi xam nga je ne peux pas un débat xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex fii réew mi li fi am ñëpp gis nañ ko du noonu xam nga li fi nekk gis nañ ko léegi dañ ko bokk nag dañ ciy wax ba géej ji fer parce que Sonko moomu ko jomaay moomul RTS sama dërëm moo ciy dem dama ciy wax ba géej ji fer hmm. nga léegi li cin bu na lay bu baxee xeeñ ñi mu commencé nii xam nga ne yow war la bett loolu moo war ta am parce que xam nga dama ne la xoolal. gis nga yaa ngi bëgg wax ci recrutement yi kan lañ fi recruter koo xamante ni selon toi dafa bokk Pastef. non bu ñu duggee ci débat bi dinaa ci ñëw man ragalu ko. mais allez-y. non xam nga xam nga c'est que toujours débat boo andee tur rek ñun dafa am sociologie sénégale sénégalais dafa gaaw ci diw dafa iñaan maam li ñaan xamuñ ko dóor ko fayu lañu xam comprendre nga moo tax fii tubaab tubaab xamul loolu mais malheureusement ñun sénégalais du ñu constitué suñu sociologie euh, malheureusement loolu boo waxee dëgg rek ñu ne kii dafa soxor mais ku nekk xam nga ne yow directeur bi la ñeme naa ko tudd Pape Alé Niang ku nekk xam nga ne liggéey bu mu doon defal Pastef nëbbatuwul une connivence assumée dégg nga pour lan rek jël sa wàll ci nar wi lii kese moo taxoon seen tëpp yi ak rëpp rëpp yëpp surtout jour bi ñu naan ay dafa grève de faim loolu su ma defee Sénégalais yi duñ ci taxaw loolu fu journaliste nu journaliste mu daanoo mais imaginez ñu ne dafa grève de faim man dama bind benn poste di ñoo bokk Jolof rakam Thierno Niang di ma ni xamee dem na baan amuñu mbokk te pourtant am nañu mbokk moom Thierno Niade mu xam bu baax Pikine bi muy dem Belgique Baba Ndiaye directeur complexe de posturation ne ko ndax tàggu noo man mu xam bu baax a baax mu taxaw ci télé di ma xas rek ko Pape Alé parce que rek di ma émettre benn suggestion laa def Pape Alé ma koy dama ko suggéré rek wax lu ko neex wax dem na ba man dañ maa dàq Dakar Actu ndax mel ni dama fa def ñombe. est-ce que lu c'est parce dafa jàpp ni. comme eh, dem na ba man Dakar Actu naa Thierno Niade yaa may déglu ci télé laay waxee ne nga yow xam nga lu tax ñu ma Dakar li ma liggéey Dakar Actu journaliste mosu ko liggéeyal kër yéenekaay ci Sénégal Dakaractu balaa maa yeew wut scoop balaa maa yeew wut scoop noo def 3 heures du matin 4 heures du matin balaa maa yeew force ma jox leen scoop parce que man su may liggéeyal nii damay bëgg nga raw fi texte yëpp maa koy corriger chapeau yëpp maa koy def bu nit bu bu autorité ñëwee fu mel ni assemblée ñuy def seen séance par exemple 10 heures lay toog nii ci fauteuil ba su damay yore nii sandwich di liggéey en même temps. mais est ce du c'est parce yow yaa ko wax léegi grand Thierno. yaa ah. yaa ni xam nga leen. yaa ni aussi tamit am ngeen sax ay lien de parenté. waaw yaa ko wax léegi. kon est ce que buñ taxawee foofu rek boo amee tey ay suggestion a defal Pape Alé warloo war a mun a am euh, euh, liberté wu woo ko moom directement wax ko ko. maanaam comme li ñu naan comme li ñu naan nit kenn du ko yedd ci mbooloo laa xam xaw ma Pape. est loolu moo déclenché ci complexe ñu xamante nekk ay waay mail bi ma jëkk am pour l'histoire moom ma ko tijjil ci benn cybercafé après mu dem Belgique Pape benn yoon la ñu a bokk débat mais am naa droit man bañ a ànd ak moom xam nga ni muy doxalee wala. waaw. parce que bu dee yow da ne journaliste nga nga da nga indépendant am journaliste lay far ah nga nekk journaliste far Pastef ah, am carte Pastef Sirajou Diallo ancien directeur en chef de Jeune Afrique il était chef de mais ñu Sénégal on a une de presse d'opinion tant Lamine Gueye ak Senghor dafa amoon ay journaux yu tudd ay conditions humaines ay AOF des journaux de parti lañ façon configuration presse bi ngay gis ni neutre et indépendante bi ça date du milieu des années 70 avec les Mame Less Dia les Boubacar Diop pourquoi parce que Senghor une ouverture démocratique donc Senghor laa la wax de xam nga dafa doon jéem a jaay doole ne mooy buur di bumi mel ni malaaka xaw ma moom tamit astafurlah sax bon je respecte sa mémoire mais loolu la wane woon quoi moom xam nga doole jëpp moom moo ko yor parce que boo ne ultra mooy loolu quoi yow yaa yor doole jëpp yaay buur yaay bumi mun naa ni sax yaay malaaka di màllat mais réew mi dafa tàng jëpp ci moom mai 68 dafa defe ne rey na parti yëpp di jéem a instauré dictature mai 68 am dafa tiit ba jox nguur gi armée bi Alfred Diallo ci baaxu Alfred Diallo mu ne ko monsieur le président dellul ci palais la place de l'armée n'est pas dans la dans au palais c' est dans les casernes on va te protéger mais moyen naa conditionnalité yi defal réforme yi defal réforme yi à parti de là Senghor a pu opérer des ruptures des des de de une certaine ouverture. mais soo waxee léegi sa biir wax dama xaaral ma eggali foofu andiwaat poste premier ministre. après bu nee ba 114 mu andi na carrément ouverture bi dégg nga andi cadre courage ci la ñoom parti ak yooyu xam nga donc dama la bëgg wax ne rek bu dee régime bi seen projet mooy def fii dictature mënuñ ko. mënoo ko boo xalaat sax. mais la nga tuddee dictature da nga jàpp ne boobu la. dictature non non léegi maa ngi ñëwaat ci Thierno donc donc dama la expliquer pour pour ma ne la. Pape mais cest à a def non seetaan. non oui quoi ñu perdre suñu fil conducteur. ma ne la euh, journaliste bu ko neexee mu far mais pour que nga wane da nga far li xewal fi nag depuis mars 2021 xam nga lan la mooy journaliste yi far ba pare di ko nëbbu yu bokk Pastef di ko nëbbu loolu moo amoon. mais yow d nga mais yow bu fekkoon tey jii ku mel ni Papa waaw dafa nëbb appartenance xaar ma ñëw man tamit non c'est xaar ma ñëw non non xaaral fait bu grave la ci journalisme dañ ko war a yóbbu ci école journalisme yi benn instant ñu ne Papa Alé dañ ko sonal sonal ba xamal lan mi ngi ci diggante dund ak dee ñu bëri jàpp loolu xam nga benn télévision fii gisoo ñu def benn montage wane benn nit ne ki mooy Papa Alé ndeke photo bi xam ma fan lañ ko jëlee déggoo ma de pour rek choquer sénégalais yi perturber leen troubler leen victimiser wu loolu tax xale yi daan génn di taal xam nga loolu parce que pour waaye ne mag yi ku soxor la en partie am na soxorte bu nekk ci mag yi parce que man toujours bëgguma koy répéter toujours sama sort ma modeste personne n'est pas importante par rapport au destin des sénégalais man bi ma mag di dàq dàquñu Ousmane Sonko ci liggéey te boobu Ousmane Sonko mu ëpp mooy parce que inspecteur des impôts la làqul mu làq dara. bi mais grand Sary dama bëgg. mais bi ñu dàq Euh, sa biir wax da nga jàpp ni euh, euh, c'est-à-dire baal ma nga orienté walla sa ah, micro ah, tuuti tuuti nee na nga ah, nga orienté waa sa micro mu ñu gën a ñëw ci wàll su ko defee son bi son bi ñëw ci tuuti c'est bon voilà donc dama bu fekkee ni tegi da nga da nga da nga affirmer que ni tey ji ku mel ni Pape dafa bokk Pastef kon en quelque sorte nëbbu ko parce a tirer aussi tam benn affaire mu bëgg nga ñëw ci rapidement pour ñu mën a évacuer yeneen question lan la ñu ba nga jàpp ni lii du rupture te it lii mm, euh, mënees nañu mënees ci li nga xamante ni mënees nañu ko dippee ab dictature. non xam nga un mot dans sens que dans le contexte où su may dafa bokk passif position passif lay jël. à part de yi am d' moom moo Pape Alé Niang moo propulsé Ousmane Sonko ci président eh, honoré comme syndicat oh, fii président honoré du syndicat des impôts et domaines en décembre 2013 fi muy défendre Taïbu Ndiaye mi mujj transiger fay ay milliards mais après 94 milliards bi mu éclaté mut ban toog ci DG bi posé Ousmane Sonko question sa entreprise dama tudd mosoo soo si histoire ku ñuy laaj sa entreprise tudd nga jaaxle. mais boobu Pape mais boobu Pape Alé aussi tamit la ñu gis mu am même posture bi avec les autres les anciens ban ancien président. ku mel ni Macky mu nekk opposant ah daawuñu woon gis Pape amoon même même position c'est-à-dire ni mu doon doxalee ak Ousmane Sonko xëj na noonu la doxalee tamit ak Macky ci gis-gisu ñenn ñi ba tey. kon qu'est-ce qui a changé. parce que vous posez à la fois beaucoup de questions damay bañ ciy déglu réer donc bàyyi ma éviter fii. allez-y fan ne dafa am carte passif su bokkee passif mais position ak passif ñoo bokk xam nga ça coïncide donc man loolu say position ak Pastef ñoo coïncider loolu xam nga Sénégal yëpp xam nañ ko loolu laa tuddee bokk Pastef moom yeneen journaliste dégg nga léegi nga ne dafa ni mu ni mu traité yeneen journalistes yi la traité euh, kii ni mu traité Sonko la traité ñeneen ñi ay opposant mm. démb nañ ci ñëw point par point est-ce que yow euh, dafa atta attention foofu euh, revue de presse dañ ko xame et ça m'intéresse sénégalais yi dem di def ci recherche ci yi nii ñuy fàttaliku parce que ëpp leen xam-xam mais il faut ñu def effort intellectuel boobu di fàttaliku. revue de presse bi Pape Alé daan def Sud FM revue de presse la pour yow loolu ndax yow loolu journalistiquement bi ngay jàng journalisme loolu la ñuy jàngalee revue de presse boo xam ne tu ne tires que sur Wade dans un contexte où problème Idrissa Seck am. fii bëri na mais fii ku nekk ku nekk grand ak sa touche. ci ni nga defee revue de presse gis nañ fi Ahmed Aïdara daan defee revue de presse gis nañ ki nga xamante ni tout le temps lu ci ëpp sax dafay dafay dafay gën a taxaw ci li nga xamante ni moo di sorti bugaan kon ku nekk ak ñooy defee revue de presse. xam nga nawetu daaw boo ko fekkewul doo xam adduwaas yi seen. xëy na de presse moom bu ñu ciy taxaw rek moom lool moom. xam nga loolu <laughs> bokkul ak li ñu jàngale ci école nawetu daaw ko fekkewul doo xam adduwaas yi seen boobu xale xëy na ñun ñoo la mag. ku la waaye noppam ak borom grand chien. waaw mais ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan fooy toog da nga may ñu fàttali la contexte bi alternance dafa am ku tudd Seydou Albert Seye yàlla na ko yaram moo nekk conseil en communication Ablaye Wade groupe Sud la bokk. la Lamine Niasse bind benn livre un arabisant entre presse et pouvoir mu ne Sud ak Ablaye Wade dañoo lëkkaloo daa daanaka sax di ko complot te loolu la histoire laa lay wax c'est 2001 li ma lay donc dafa mel ni foofu diggante sud groupe sud ak euh, kii nu mu tuddati ak euh, ak neex na du noonu bi problème Idrissa Seck amee nga gis sa sud changé ligne di tiré ci Wade Abdou Latif Coulibaly bind livre en 2003 gars yi ñenn ñi ñenn ñi quoi ci PDS ak yooyu surtout seen journal bi ñu yoroon amoon nañu ay journaux ñu joxoñ baramtum Idrissa Seck na xëy na mën na ci ginnaaw Latif maa ngi fàttali ko interview bi Latif def ak Idrissa Seck en 2006 ne ko ñëpp ne yaa nekk sama ginnaaw. comment yaa ne sama ginnaaw donc xam nga kon rumeur boobu mi ngi daw ci contexte boobu laa la wax Pape Alé tout ce qu'il faisait de presse am c'était orienté ci défense u Idi et chargé Wade après xam nga xuloo politicien bu ci duggee noonu bi ñuy juboo doo ko fekkee après ñu juboo ci lañ commencé déplacer curseur bi mel ni ko gën a faral Benno Siggil Sénégal ak ñu doon wax assise nationale bi bi éclatement assise nationale amee octobre 2011 jàppal li ma la wax nii jusqu'en octobre 2011 jàppal ne Pape Alé mosul interview Macky Sall jàppal loolu ba octobre 2011 musu ko interview xam nga décembre 31 décembre 2011 la interview Macky Macky ngi def congrès d'investiture fii ci payal bii nii fii xam nga Yoff Jamalaay le 10 décembre 2011 qui tombait un samedi ñu naan 2 millions de personnes ñoo nañ fa même bu matul 2 millions de personnes pend ku nekk xamal nga ne élection yi ñu jëm nii après Ablaye Wade Macky Sall moo fi. comme pour quoi nga comme. xam nga waxtu bi voilà dañoo bëgg évaluer non mooy question bi nga posé ñu Euh, li mu doon defal xaw ma lu mu seq ak Macky nag en privé loolu xaw ma ko mais ci li ma sama bët may laa wax man mosuma gis moom mu interview Macky Sall avant le 31 décembre 2011. d'accord léegi bu ñu dellusee ci Pape Alé bu tey bi. bu bàyyi léegi émission bi du Pape kese quoi c'est que on parlait de. ak recrutement yi nga xam def nga def na ko fan en tant que journaliste noo ko gisee. non man dama daan toog ci ay plateau ay nit la parole jël ay balle pour dañu may xas bëgg ma tudd tur quoi. dégg am na koo xam ne mayu ko parce que ma nee ba xam ne complot la ma ne kenn dootu ma gisati ci télé muy xulloo moo tax Pape Moussa Sow ñëw wax loo xam ne du dëgg noonu lañ ma doon def quoi bu nit waxee lu dul dëgg dañ naa ma yóbbul tontu. ah mais grand nag loolu débat la woon nag. déedéet xaaral parce que yaa je pense que yaa ngi bëgg wax seen plateau bi ngeen doon def sans limite fépp la plateau yëpp kii animé moo may xaj micro man déjà ils viennent en nombre cinq la ñuy doon pro passif xam nga tax ma nangu débat boobu lañu Sénégal kenn du fi waxee man ne man sëtu njaajaan njaa bi maay wax ba géej gi far ma ne man maay wax ba géej gi far mais nuñ lay xañee micro te ñu te ñu recruter la comme ni la ni la ni la Thierno Diop dafay bokk ci dafay bokk ci koo débatteur yi dugg ci xaaral damay bañ dugg ci sew sew mais dama lay wax rek li Sénégalais gis mooy bu ñu ma woowee kii dañ may présenté di kii quoi ñi ñiy toog nii xam nga ba ñu ma ñu far parce que man même bu ngeen nekkoon dix mais intellectuellement vous ne pourrez pas me ravir la vedette heureusement ñi ñu may jox amuñu calibre intellectuel amuñu poids li ñuy wax yëpp du dëgg ay fantaisie la voilà mais au moins su may wax man nga may ma temps ma wax mais nit bu ma insulté parce que Pape Moussa Sow m'insulte xam nga fi may wax dafa dafa ma saaga en en réalité léegi dañ lay may sax nga bañ a mais kii ku ko defal ma ne ko. kenn du ma mës a dégg ak yow ma xuloo parce que xam naa li ngay wut parce que loolu lañ doon provoqué xam nga ba tey ba ma jaaxal leen ci argument mënuñ ma jaar fenn dañ lay dañ lay provoqué xam nga jéem a créer histoire ko defee ñu ne kii ku wax ñu ngi koy gis benn par benn. Grand Thierno moo tax nag ñu bëri nag naan da ngaa bëri histoire am ci ay wax bu mag Walfadjri ba deux mille dix neuf ba deux mille vingt ba deux mille vingt et un kenn mosuma dégg ci plateau mu yëkkati sama baat te Walfadjri mais mënu woon toog semaine ci temps boobu yëpp lu ñu invité c'est que jamono yi Walfadjri ñu ngi seetaanatuñ ko moo tax Sénégal yi xamuñu ma bu baax te xam nga ne boobu toujours man Tafa Diop kii nii dëggoo ma la seen actu en set kenn xamul ñaata émission lañ fa def na gars yi tapé YouTube xool d'accord xaaral ma ñëw léegi bi may ñëw Seneweb la commencé phénomène boobu ah, léegi dañuy ñëw <laughs> xool te provoque mm. parce que bu ñu àndee xam nga mënoo défendre Sonko ci Adji Sarr mënoo ko défendre ci 94 milliards mënoo ko défendre ci système ak anti système donc comme il leur manque des arguments au plan intellectuel ils compensent cette vacuité intellectuelle par une certaine insolence ak ay affaire sew. d'accord mais xoolal xoolal ba tey ñëw xam nga jaaxaluñ ma mais kii animé plateau bi nag. muy mm. ma ma leen di defal le jeu. d'accord mais léegi les masques parce que jamono yi pend damay dox ci mbedd. Ah, xam nga man mais ku fi am ay compétences aussi tamit war nañ laa war a mën a recruter teg la ci plateau loolu ça n'a rien à ak par rapport ku fi am compétence am parcours bi nga xamante ni moom moo war sénégalais yi bëgg la nga am nga am légitimité bi am crédibilité war nañ la war a mën a teg ci plateau. est-ce maa ngi doog a am sécurité man sama dund tey au moins bu ñu ma reyee dinañ xam ñan ñoo rey mais avant man dama naan dem ba parce que li ñu daan defee ci plateau yi dafay mel ni man dama bañ Ousmane Sonko eh, eh ci procès Mame Mbaye Niang j'ai été par metre Bamba Cissé avocat de Sonko à témoigner xam nga lu tax bi ñuy nekk Dakar Actu daf xaw ma nag lu mu demee information bi tamit loolu ñi ma jiite jox nañ ma rapport ne ma lii mooy rapport bi ñuy coow ma bind ko moo dem ci plateau wax ko rek dégg nga après ñoom xam nga boobu soxnañ ma dañ ma woo ñu ne ma toogaatal Ousmane Sonko Moustapha Diop mais témoin bi ñu koy wax affaire salafis en 2018 ma génn benn article Mamadou Dia def benn comparaison Mamadou Dia Sonko ma ne le président Kennedy mu ne ne me demandez pas en religion je crois demandez-moi en quelle Amérique je crois mais demandez à Ousmane Sonko en quel Sénégal il croit et non en religion il croit seen yoon nekkul ci bu nekkee salafiste xam nga John Kennedy fii le premier président catholique des États-Unis dans un pays à dominante problème information laa am mais dans ce pays il y avait une désinformation organisée et loolu baaxul xamul tax dañoo tooñ ñun suñu genre yi imaginer man man li ma injustice yi ma victime yëpp ci nguuru Macky Sall penda hmm. damay défier quiconque au Sénégal mu génnal ma benn wave bu ma nitu Macky mu sa jox sauf kenn am na koo xam ne benn paal daan na ak Macky bu bàyyi ko ma sama woo quelque dans un restaurant de la place may ñibbi mu envoyé ma cinquante mille gis nga à part cinquante mille francs yooyu ku mës a gis dix francs bu ma nitu Macky Sall may sax nga génne ko. d'accord mais mais mais arrêté ci point boobu donc ñun euh, dañoo tooñ. ils nous diabolisent uniquement pour accéder au pouvoir et pour bénéficier nomination non méritée comme tey li ngay gis nii. yaa ngi dégg affaire bi dafa mais Sénégal dafa dellu ginnaaw pend. lan lañ gis. mais des nomina mais quand même mais nomination yi mu ngi gis sax su Ablaye Wade wala Macky Sall. ñeme wu ko nomination yan mais le gars si je si je ne me il il est il est encore euh, benn dafa am benn liberté provisoire ci affaire bi ñu ko doon toppee wala. affaire passeport waaw. defe naa liberté provisoire la damay bañ wax ma wóorul mais jusqu'à dama jàpp ne liberté provisoire la am donc outre defuñ enquête que enquête de moralité dafa war di hmm. mais boo deful loolu au moins nga nga ko ba pare ñu xam nga doog ko nommé wala. c' est mon ami bon il dit que il est mon ami kilifa bon ma ma jàpp ne c' est mon mais du tee dañuy wax dëgg. nomination boobu pend dafa régresser Sénégal loolu dégg nga. Hmm. nomination doomu Yacine Fall bi dafa régresser le Sénégal bu waaye du question ne kooku tam ndaw soosu encore une fois amul compétence wala yooyu mais xam nga perception dafa baax c'est pas pour rien États-Unis ñu andi benn loi anti népotisme parce que loolu c'est à titre purement préventif xam nga ñu ne ku sa waajur di exercer fonction yi yow mënoo am fonction yi du question de mérité ko xam nga mais pour joxe impré bañ a joxe impression ne état la. vous voyez li ngay gis nii yi ñu ci teg ba nomination yii nii xool ci ci ak ak ak bu Ngagne Demba Touré par exemple bon je ne sais pas si vous que vous êtes ci sa portable. si ma la dégg bu baax. bu Ngagne Demba Touré par exemple nomination Ngagne Demba Touré loolu Senghor du ko def Abdoulaye du ko def Abdou Diouf ko def poste bu stratégie noonu nga jëlee fa docteur Ousmane Cissé nga xam ne teg si bëri yu Sénégal ci domaine bi moom moo ko bind nga jëlee ko fa au moins nga teg fa naataangoom mais nga teg fa Ngagne Demba Touré vous voyez et ma jël FONGIP. bon maa ngi vérifier ki ñu fa nommé nii dama gis ne comptable la xam nga des structures comme FONSIP FONSIP dafa nekkoon ci benn processus bon réflexion pour mutation institutionnelle maanaam penn pour renforcer ay moyens FONSIP vous voyez dafa doon laaj BCEAO suivant recommandation BCEAO képp koy jiite nga am expérience ci banque wala ay établissement financier nga yàgg ci liggéey et que c'est ak ndaw si wóoruguma maa ngi vérifier et sax ñoom dañoo waxoon structures bu ñëwee ay FONSIP ak DER ak yooyu yii dañ koy supprimer xaw ma rationaliser Mm-hmm. en peine oui. mais pourquoi les sénégalais ne doivent-ils pas s'intéresser ci aspect yooyu noonu par exemple moi je crois que bu ñu basé woo ci nomination daal da nga jàpp ne diggee woon ak liñ ak acte ñu nekk di posé dafa dafa waroo donc il faut pire que Wade Diomaye et Sonko en de nomination font pire que Wade Macky Sall Senghor Abdou Diouf réunis réunis laa wax parce que mosoo ko gis yii nii non mosoo ko gis Abdoulaye Wade nommé na fi benn ministre gars yi yuuxu au bout de quelques jours bi muy doog a falu mu de mu démettre ko dégg nga Marion Lucien Tissa Mbengue je crois euh, Macky Sall am na profil yoo xam ne nii ñemewul doo leen nommé quand même dañuy waxante dëgg même bu dee PCA laa wax nag waaw même bu dee PCA voilà. d'accord. alors beneen ponk bu gën a fës ci actualité yi je pense que ni ni nga waxee ni sax jot nga ramassé su <laughs> sujet yu bëri euh, affaire Mimi Touré ak Mansour Faye xam nga ni nag euh, moom Mimi Touré euh, ginnaaw bu mu joxañee baaraamu ma kii di Mansour Faye Mansour Faye yóbbu woon na ko ci kanamu yoon ndax daa jàpp na ne Mimi da koo diffamé ba sax mu toftal ci ni ko moom la muy baal keneen mënu ko ko baal moom Mimi ndax poste bu mu am la ak nombre temps yi nga xamante ni jot na ko am fii ci réewum Sénégal moo ko waral ci lu ni mel nag ñu ne mais kii de avocat bu Mansour Faye di maître Ousmane Thiam dafa réagir tout à l'heure ginnaaw euh, bi tribunal joxe euh, boobule euh, verdict nee na le tribunal n'a ni relaxé Aminata Touré purement et simplement ni au bénéfice du doute par contre le juge a pris la décision de relaxer au bénéfice de la bonne fois en matière de diffamation oui mu ne en matière de diffamation Euh, cela veut dire que c'est une décision qui a été prise pour dire que Madame Aminata Touré a tenu des propos diffamatoires donc euh, qui ne son pas vrais mais euh, qu'elle s'est de bon foi loolee daal la yëkkati dénk ko ci suñuy naataango ya nekk foofee ci Seneweb. jaaxal na ma leen waaye xam nga comme àttekat la moom li mu ci jàng jànguma ko ah ma jàpp li mu wax rek waaye mais li nga wax noonu jaaxal na ma li su ma déggee français yow ni nga ko waxee nii. Hmm. dafa moom daal mais trompé xaw ma la de bonne foi. de ah, daal euh, le juge a pris la décision de relaxer au bénéfice de la bonne foi. waaw bi de la xëy na li mu ci jàng xam nga tam man jànguma comme li mu jàng jànguma ko. et puis man sax ak lu yoonu ci wax ci làmbi muus ba fay fokk tama man sama yoon sama nga ñu nekkul ci diggante Mansour Faye ak Mimi Touré. tegaat na ki sax benn affaire grande chère nee na. le conseil. du maire moom le conseil du maire de Saint-Louis nee na le juge a été obligé de dire que Mimi Touré en filigrane n'a pas dit la vérité et que les propos sont diffamatoires cependant on l'a euh, pardonné parce que le tribunal a vu une bonne fois chez elle renseigne-t-il. ah waaw waaw xam nga dafa am lu ñuy le pouvoir discrétionnaire du juge. sama njàngum droit bëriwul nag mais damay dégg ñuy wax loolu ñu ko jàng mooy juge bi daal am na ci circonstance yoo xam ne moom bu fa yi muy convoqué yeneen considération yoo xam ne moom lay faire appel pour mun a trancher moo tax ma ne comme xam-xamam la ah, mm-hmm. damay waane loolu su ma fi nekkee di ci sori mais bu dee nag euh, tubaab rek la ñuy li nga wax ñaari wax la wax de nga wax de Mimi mm-hmm. Touré bu dee li mu wax du dëgg ah wax bu dul dëgg de nag moo mën a doon diffamation la mais nag man encore une fois sama nga ñu nekkul ci nga baal ma ni ma ko waxee noonu quoi diggante kii ana luy yoonu ji nax ci laami muus ba mu fay fa ko tama diggante Mansour Faye ak euh, Mimi Touré mi ngi mel ne diggante Saddu ak Teku bu ci def sa baaram xam nga lu tax foo ko convoqué histoire ba d' abord euh, Mansour Faye man dama bindoon benn post Facebook en son temps boobu ñu ngi jëm ci Covid bi ma ne pour rien au monde maa ko tuddee la femme de César ne saurait être soupçonnée tubaab mooy làkk loolu xam nga Marème Faye ni mu mewoon ci nguur gi boobu ñuy wax fondation bi Covid bi nekk situation bu garaaw ma ne Covid bii kat warul am benn polémique te pour éviter polémique xam nga corruption boo koy xeex ci prévention la mooy perception la corruption. Mhm. du question nit ki da koy jàpp loxo ci poos mais da am benn perception de fii corruption mi ngi fi am kon nag il faut dégager toute possibilité pour fonder une telle perception ci corruptibilité ñuy gérer affaire bi xam nga. Mhm. mais comme Mansour Faye ni mu jegee Macky Sall man ma bind ne foofu Covid bi xam nga lépp lu jëm ci ndimbal bi ñu doon jox askan bi ñu jox boobu billaahi penn boobu coow que ni xalaatoon naa ne. polémique dina am na jël bépp xaalisu Covid bi lépp loo xam ne ay don la ay lu jëm ci alimentaire ak yooyu ñu jox ko armée bi mu gérer ko ñu dépolitiser ko bon léegi d' abord ma Macky Sall même ni mu namee Mansour Faye waxuma Mansour Faye mérité wul dégg naa histoire am APR ku fa jàmbaar la bokk na ci xeex yëpp mooy li ma waxoon ci doomu Yacine Fall bi rek Macky Sall aurait dû éviter di nommer Aliou Sall frère am wala Mansour Faye ci contexte bu mu faloo moom ci ku doon xeex dévolution monarchique du pouvoir du et puis pend dëkk bi tamit nañu waxante dëgg nag waxante dee. Mhm. ñu ànd di bokk ak Macky Sall wala. Mhm. alal ji ñu yoroon dafa xam nga ñu ngi di teg tam ci dëkk bi bëri na dañuy wax dëgg rek wala. mais mhm. boo leen jàppul loxo ci poos dégg nga. dëkk bi tam il faut ñu wax ko. voilà donc ma Touré comme ci seen biir la bokkoon xëy xamante nañ mais ma Touré tamit man je crois que du je la respecte beaucoup bien sûr mais Sénégal il faut ñu dépasser débat yi ñenn yow bu la neexee nga ànd ak Macky Sall tàqali koog Macky Sall naan yaa ngi kii xam nga dugg ci benn genre opposition ñu woowaat la def la tête de liste après amoon li nga bëgg nga génn lu nekk nga yàq ko Ousmane Sonko tey ngay ànd ak ñoom Ousmane Sonko vraiment Penda moi je crois que comme gars yi changement la ñu bëgg ñun nañu changer ay sujet débat am. parce que Mimi Touré vraiment. Mhm. pour man euh, du sujet débat parce que tànk ginnaaw la yóbbu mais du tànk kanam quoi te dañoo war a avancer ci Sénégal. alors grand société civile bi dafa am mm. lu ñu bëgg euh, moo di ñu fexe jumelé li nga xamante ni moom moo di élection législative ak élection locale yi parce que daal xam nañ ni bu ñu sukkandikoo sax président Macky Sall mos na ko wax élection yu bëri yi am ci réew mi daal daanaka lu bari la ñuy dikkee ci li nga xamante ni moo di suñu gafak te loolu amul benn rendement bu nga xamante ni euh, mun na ko indil réew mi euh, économiquement parlant ci lu ni mel na ñoom ñu sàkku ci régime bu bees bi euh, ñu xool naka la ñuy def ba élection yi ñu jëm moo xam législative ak locale yëpp ñu boole ko jàpp nga lu ni lu ni mel mun na nekk et aussi tamit su ne su amee ndax dina nekk lu gën. waaw waaw waaw xam nga. ci jamono bi nga xamante ni nee nañu président dafa bëgg dissoudre assemblée nationale waaw xam ma koy nuyu. seen domaine la lu ñu xam la ñoom tamit ñi fa nekk ñëpp ñoom Fall Gradel ma leen di nuyu ñoom ñëpp yàgg naa bokk ak ñenn ñi bon gis naa seen taxawaay ci réew mi daal ñoom professeur Babacar Gueye sama nijaay ah. ñoom hmm. vraiment seen taxawaay ci réew mi rafet na. dafa am daal loo xam ne dégg dégg naa ko ci seen wax say ci suba fii ci plateau bi ma nekkoon ñoo daal dañuy créer benn autorité bu autonome pour gestion élection man loolu dama ci ànd ñoom penn xam lu tax. Hmm. da ngay xool penn fii Sénégal dañoo voté code consensuel 1992 ci élection ñu ne ñëpp dañuy déggoo mais boobu tey mosuñu déggoo ci dara dégg nga code consensuel bi ñu ko defee 92 sàkkal pexe suñu bàyyi Babacar Seye yàlla na ko yàlla yërëm ki ko président conseil constitutionnel Kéba Mbaye démissionné booba tey Sénégal ay coow kese la Abdou Diouf jël général Lamine Cissé mu fexe ba def élection jàmm am après Abdoulaye Wade falu coow fichier bi commencé waat à partir de 2005 xam nga coow yooyu ba Abdoulaye Wade gagné 2007 ñu ne Guinée ñoo gagné 2010 <laughs> les partenaires comme ay Friedrich Ebert ak yëpp audité fichier bi ñu nekk dara nekku ci mais teewul opposition bi di contesté rek. ba naka noonu la Abdoulaye jël ku tudd Cheikh Gueye nekkoon directeur général des élections nommé ko ministre chargé des élections moo organisé élections yi jàmm am léegi Macky Sall tamit ñëwaat indiwaat waa parti boo fàttali ko 2017 suñu bàyyi Abdoulaye Wade def livre blanc ne du nangu de yi contesté 2019 élections yi jeex Idrissa Seck tam def livre blanc contesté donc boo xoolee Sénégal coowal élection mus fi am te pourtant li ma jaaxal bu jour voté moom Sénégal yi dañuy solo ba set dem voté dem añi nan ataaya toog di xaar résultat mais avant bi nag mooy bëri ay coow kon ça veut dire que du problème institution du problème texte bu ñu waxantee dëgg parce que code consensuel boobu ñoom bàyyi kee baa may bind boroom xam-xam yooyu ko bind man gëm ma ne bëri na lu ci doon naatable mais kay xanaa comme ni ma la ko waxee gis nga code bi bi ñu ko bindee ba pare Abdou Diouf ne du ma ci changé virgule mais bi mu ko arrangé moom vers 98 waxuma la virgule mais dafa changé point d' interrogation yi point virgule yi point d' exclamation yi point de suspension yi lépp la changé parce que ça l' arrangé am na benn conjoncture interne ci biir parti ji ba ko créé le renouveau Moustapha Niasse léegi mu waaj a dem xam nga ci contexte boobu la woon mu changé ko surtout donc yenn disposition ci code boobu noonu donc dama bëggoon ne fii amuñ problème mu mais suñ ko boolee moom grand suñ ko boolee ah, yëf dafa nar a gën a yéex parce que déjà ñi ngi naan buñ discuter ci li nga xamante ni moom moo di assemblée nationale ba balaa ñuy amaat amal li nga xamante ni oui. dafa am lu ma loolu benn aspect la c'est boole bi voilà mm-hmm. merci xam nga penn nañ ko waxtaanee. Mm-hmm. bu fekkante ne moom dañoo am euh, ay pexe pour xamal lan <laughs> kii kii waa ba ngay def déclaration de loolu laay ragal man waaw loolu laay ragal daal pour pour may ko parox ndool boo xam ne du def déclaration de politique générale pour man xam nga la laay mën a gëm yi ngay wax ni yëpp xam nga fu ñu ko war a waxee justement ci déclaration de politique générale bi pour le moment hmm. dem gouvernement bees bi mais ba tey waxuñ fu ñu jëmee Sénégal yi ah comme li doon wax ci 10 ans yëpp waxu kon daal dans ce cas là proposition yi am ni yëpp da jàpp ni bu la PM demee à l' assemblée nationale si lañ ko war a mun a proposer lu nu mel. mais fu ñu proposer parce que société civile day xalaat c' est à titre purement. ah mais xamaguñ kat PM kañ la amal déclaration de politique générale am. mooy déclaration ci dara télé fépp télé su ma tuddee solution du woon solution ay problème kese la woon. mais kon dans ce cas da ngay rejoindre ku mel ni Madiambal bi wax ni le président tey jii en voulant dissoudre l'Assemblée nationale dafay protéger le PM euh, d'une euh, euh, nu ñu koy waxatee sax. de faux oui pour pour pour un éventuel faux bond. déedéet lii bi yéen. waaw motion de censure. non xaar xaar attends yooyu ay caaxaan xaar xam nga perte tam il faut ñu def ndànk man parfois samay débat. c'est politicien Sénégal man nekkuma seen niveau de débat tam pend dañuy waxtaan rek quoi parce que débat bi dafa médiocre débat la boo xam ne pour nax ñoo te gënuñ ñu muus nag ëpp ñu xel bu ñu doon def politique sax ñoom dàquñ ko gis nga motion de censure man je crois que politiciens yi autocensure lañ soxla motion d'autocensure ñoom parce que li andi Ousmane Sonko politique justement mu prospérer ak Pastef ne anti système rek nax ñëpp parce que ñi au regard des articles 42 ba 50 xaw ma genre yooyu bàyyi Ismaïla Madior Fall moo ma gën a xam article yooyu boo ko lisee président Diomaye Faye doole ji mu yor nii boo daxee premier ministre Ousmane Sonko bu subaa mu falaat ko loolu dafa am benn sens boo daxee Sonko à la bi nga ko daax mur bi ci topp kii da koy rétablir. kon daal dàq nga déjà li nga xamante ni euh, moo di idée boobu. que ni dafay dafa bëgg dissoudre assemblée pour protéger li nga xamante ni moo di président bi. Penda c' est que da ci temps bi am man ñoom onde bi ñu nekk. nekk je sais foo xam ne yàlla rek moo ko fekkee lan lañ wax d' abord. protocole na teeru bàyyi suuf bi. kon da ngay rejoindre Jeune Afrique. bugaan ngay day nee Jeune Afrique dem dem de teeru bàyyi suuf bi. démb am lu ci kii ba non ñun sax dañuy formé am na lu bëri la ci dégg mais laataa ñu ci protocole bi. laataa ñu xam nga protocole na solo. mais yow nag fenn c'est que da ngay dugg ci benn question balaa a vidé a dimbali sax pour que gën a li ngay wax gën a mun a leer ci bopp askan bi c'est-à-dire yow yaay dugg ci sujet bi après génnaat fa dem fa cest à yaa ngi bëgg génn déjà dem ci protocole bi te protocole bi ñëwaguñ fa dama bëgg d'abord ñu évacuer li nga xamante ni moom moo di crise bi am la à l'Assemblée nationale non moom la pourtant c'est lié loolu laa lay wax xam nga ñoom li ñuy projeté politiciens yi li ngay defe ne man damay jóge ci sujet non non bi ñu may yóbbu laa dul dem ñoom moo tax ngay gis may génn fenn fi ñuy naxee laay jëm fi ñuy naxee xam nga man lu ma jàpp mooy guddi yi Macky Sall Sonko Diomaye réeroowuñu APR ak Pastef réeroowuñu Benno Bokk Yaakaar ak Pastef réeroowuñu justement loolu laa lay wax lii Abdou Mbow di def nii pour man ay cinéma kese la. foo teg loolu. fi ñu doon waxtaanee waruñu waxtaan ñoom ñaar waruñu def amnistie c'est ça les de fond jàpp ay doomu Sénégalais ñu rey leen ci mbedd mi xaw ma quatre-vingt xaw ma ñaata bakkan doomu aadama lu mu fooree ñi nekk fi naan ay motion de censure ay soirée wata payti ah ay débat petit étage va va étage comme ça dañuy waxtaan quoi xam nga bu ñu mënee en bas. ah mais de mais déclaration de politique générale tamit am na am na am na fulla. la preuve bokk na ci déclaration de politique générale yi nga xamante ni bu ñu xool ci histoire bu ñu xool ci histoire politique Sénégal bokk na ci déclaration yu nit ñi gën pour man ñoom gisee bi ñu gisee ak Macky lañ tëral lépp li ñu war a def ci cinq ans yëpp xam nañ ko dañuy nax rek affaire wu kii la quoi xam nga kaña bi bu jaayee ruxu bi nañ ko kojee fee mu génnaat fee ñu koj ko fee yooyu laay bañ man du ma kaña bu ñuy koj bu bàyyee dama ne xool pour man ñoom bi ñu toog Macky Sall fii ak cinq li ñuy def yëpp xam nañ ko lépp loo gis ak cinéma la tant xaw ma li ñu naan wuy ma. li ñu naan protocole xaw ma mhm. lu ne ci biir damaa jàpp ne xool comme kenn du fooye lépp lu ñuy def ak la APR dañuy ñu ngi jàpp Bah Diakhaté ñu koy wax. ngeen toog ne yàccin ya sax di foole du ngeen def benn geste du ngeen sax def déclaration ngeen ne opposant ngeen fii Bougane Gueye Dany moo fi opposant wala Thierno Bocoum ñoo am taxawaayu opposant dégguma Barthélémy Dias gaynde xare mais xam naa moom tam opposant la bu jógee ñëpp xam ne jóg la mais APR perd bu ñu tardeel duñu duñu duñu ñuy fooye yaa may dégg bu ñu bëggee foo nañ dem Magic Land ay yu fooye nañ dem Magic Land ñu duñu ay xale dégg nga pend mhm. man seen débat yi dégluwuma ko sax yii ñuy wax nii xool xam nga lu ma ñor constitution moo ne premier ministre def déclaration de politique da ko war a def depuis moom depuis ñun ma man may nekk xale ba tey Abdou bay mais ci contexte bi la dafa déclaration le politique générale coow amut waa PDS di ko yàq lu mel ni xamee keroog man laa xam ne sax Abdou Mbaye nekk nii la amee capacité muñ mais lu ne lañ ko wax li ñu ko doon wax sax ay hors sujet la bokkut ak sax li ko fa andi woon mais dafa muñ seulement il s'est acquitté de cet exercice Mamadou Lamine Loum maa koy fàtte li may nekk xale yëpp boobu c'était en 98 ñoom Djibo Ka mi def motion de censure mais dafa taxaw affronter leen léegi lenn mën na am Abdoulaye Wade bi muy falu amul majorité pourtant yaa koy fàtte assemblée xam nga contrôlé ko. Mhm. pourtant il a pu gouverner ba 2001 Abdoulaye Wade mi ngi falu mars 2019 mai 2001 la def législatif parce que il a fi fondé benn consensus ak ñoom Baye Ousmane Tanor Dieng ak ñi fi yàlla ko yàlla ak ñi fi nekkoon parce que yëfu mag loolu yëfu mag quoi xam nga lii état la état du foo donc dem voté budget sans problème def ñoo ñu jàppale ko 2001 boobu référendum bi moo parce que Sénégal loolu la soxla boobu ay changement majeur dégg donc def nañ dekk kii Moustapha Niass def na déclaration politique générale ñu def référendum côté mois de février janvier janvier 2001 ñu def après est-ce est, mais est moment opportun selon vous tey jii pour ñu dem ci ab dissolution ñu dem ci dissolution vu que nee nañ le président saisir na ah, déjà ah, conseil constitutionnel oui loolu seen loolu bañu ko moom laa la wax Abdoulaye Wade loo xam ne dañu koy waxtaanee tamit dissolution dara nekku ci parce que bu fekkee rapport de force bi dafa ne passif moo ëpp doole tamit mais c'est normal que assemblée bi configuration bi dafa war a changer. non mais je veux dire fi ci toll nii. fi ñu toll nii ci réew mi. tey jii bu ñu demee ci ab dissolution sachant que ni bu ñu dissoudre assemblée bi en septembre balaa ñuy amal ay élection peut dinañ dugg ci deux mille vingt cinq bi lu nu day impacté ci li nga xamante moo di budget wu deux mille am na consensus ak son opposition mu voté budget du ay décembre janvier mu def référendum mais mu def élection législative am ñi tam mën nañu waxtaanee loolu wala mais est-ce que ñii am nañ grandeur boobu laa la wax et est li ñuy def yëpp sax du wuure est-ce que lii ñuy def yëpp c'est pas pour nous divertir pour Sonko l'intérêt seul est de se passer de l'exercice fastidieux et potentiellement périlleux d'une déclaration de politique générale alors que vous n'avez même pas de politique générale ils n'ont rien à proposer aux gens amul. Ah parce que dama politique générale dama ko dama ko gis yow. non parce que boo ne yow changement ngay proposer Sénégalais par rapport à Macky Sall loo contre contre Macky Sall nag jàmbaaru xare la ci liggéey da naan yow Macky Sall li la def ci inondation yi man lii def plus value la def ci lii la def ci infrastructure def ñii mën nañ loolu. mënuñu ko. ah mais bu ñu ñëwee à l'Assemblée parce que man ànd Macky Sall xam ne mais mais mais pourquoi nga à dire pourquoi nga nga nga nga nga nga wax déjà que ni mënaguñ ko alors que ni ñu ngi doog toog. dañoo dem Colobane tegu de politique générale patrimoine bu PM sax tamit ñu ngi koy xaar. dañoo dem Colobane xale yi di laaj liggéey ambulant yi foofu ñu naan leen DER li suñu bàjjen ay dem ba ñu yor DER xam nga du xam nga ko. Hmm. DER DER mooy délégation entrepreneur rapide. Euh, lëf loolu nga xam ne moom la fi Macky Sall créé rek pour nax nit ñi boobu moom tam mi ngi jëmoon élection DER lu mu mën Pape Amadou Sarr mi ko jiite woon. ñu ngi financé ay xale de am na am na ñu nga xamante ni seen financement ñu ngi ko jëlee ci DER ba tey gi ñu monté Sénégal Pape daal nee ci interview bu mu def ak ITV mu ne pour pour nga jox euh, nu tuuti jeune xëy buy génn deux cent mille francs jeune cinq millions ba six millions parce que chômeur Sénégal bu ñu la doon compter noonu la xam nga ni donc dotation boobu xaaju ñu fay jege donc DER bon bul man damay bañ jël temps moi je suis le conseil spécial du directeur général de l'agence pour l'emploi des jeunes des banlieues document agence pour l'emploi des jeunes des banlieues man maa ko inspiré en 2012 OFEJBAN lañ ci fekk ki ma àndoon nag maa ko proposé l'élargissement des prérogatives mission de l'OFEJBAN pour créer l'articulation entre la problématique du chômage qui sévit dans le monde en plus pour l'emploi des jeunes de la banlieue dakaroise tu ne règles pas le problème parce que y a le phénomène de l'exode rural ceux qui du monde rural ñëw fii Dakar donc pour créer articulation boobu moo taxoon ma xalaatal leen boobu noonu malheureusement ñi ma ko doon jox xamuñ sax la après waa APR yooyu noonu xam nga après au de quelques années ñu tas ko bi ba seen fin nguuru Macky Sall am na benn conseil Macky bu ñëw ay conseil ma jox ko remaniement bi Macky Sall mujj def mu ne ma yow Thierno dafa mel ni idée yi ma joxoon am na ku ñu ko jox taftal ko ci ay prérogatives am. d'accord donc euh, pour ne pas se perdre ñoom bi ñu demee Colobane ma ne xalaat ñi kon programme deuxième mai wut xam nga programme kii marché wut parce que ñoom nee nañ PSE bi rek dañuy ñuy dawal ñoom deuxième bàyyi Abdoulaye Wade soppi la ñu jaay changement c' est toujours dans le système Macky Sall ne rupture ci sens toujours dans le système mais ñii révolution la ñu pas au sens militaire du terme mais au sens culturel du terme révolution des mentalités révolution des pratiques des modes opératoires changement de structure et tout. d'accord fi ñu daanalee mooy li nga jox ko sànq c'est important ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moo di protocole Cap Manuel bi démb Bougane également ci sortie bi mu doon def foofee ci émission Faram Facce mu ngi ciy wax nee na daal jàpp ne ñoom dañoo war a wax sénégalais yi dëgg-dëgg li nga xamante mooy contenu boobule boobule boobule euh, protocole. non Bougane en résumé li wax mooy Pastef mënul nekk anti système parce que mbir du defaroo réew mi mi ngi yàqoo ci loxoy ñoom Ousmane Sonko ak waa ak ñoom Diomaye yii nii parce que ñoom ñi au moins bi ñu nekk impôt et domaine la ñuy caxat-caxatee suufu Sénégal ci tàngoor Ablaye Wade fekkee wuñ xeexu 23 juin xeex ils n'ont jamais mené un combat pour le peuple sénégalais le seul combat qu'ils ont mené c'était le combat d'un syndicat et le but de défendre et moraux des travailleurs ñoom ki seen de léegi nag moi très au départ dama ko prêter bonne foi comme wax naa la ko sànq xam na en plusieurs occurrences j'ai pu défendre Ousmane Sonko du question ne xam-xam la ma wan wala dara quoi mais rek jamono yi Macky Sall tamit ngi ñëw di jaay nañu doole ma gis ne kii nii am naa ci moom yaakaar loolu xam nga mais bii dee ba ci biir moom anti système boobu ma doon dénoncé ci la nekk di ma wax du jël téléphone Karim Wade parce que système bi la après mu dem seeti Baye Ablaye ci livre bu ci pétrole bi mel ni comme si li ñu dal ci pétrole bi Atepa ko teg tudd turam dem ànd ak Atepa bu jaabi après tey yaa ngi wax Mimi Touré bii nii lu mu yàqul Ousmane Sonko dem ànd ak moom Mary Teuw Niane nga ànd ak moom mais foofu antisystème amatu fa donc su ma comprendre Bougane mooy système bi ñoo retrouvé wu ci seen biir Macky Sall ak Sonko bu ñu retrouvé système bi moo retrouvé et que Sénégal nag tey ndeysaan li may critiqué yëpp dama yërëm ñii bëgguma ñuy échec xam nga lu tax pend bu ñuy échecgee ñii damay xalaat kan que xam nga lu nekk fii nii Euh, boo amee jàngat au fil des régimes seen mer day gën a yokk jeunes yi li ñu meree Abdou Diouf ba mu naan jeunesse malsaine li ñu def Abdou Diouf li muy métti yëpp. d'accord li ko jeunes yi li li jeunes yi def Abdoulaye Wade moo gën a métti. Mm-hmm. li jeunes yi def Abdoulaye Wade li muy métti yëpp. Mm-hmm. li ñu def Macky Sall moo gën a métti. comme ñii tamit euh, damaa tiit parce que comme lépp nax la woon mer gi mi ngi suñu karam. d'accord léegi le rafet risque d'être brutal. léegi nag ku mel mm-hmm. li mu leen li ñuy ubbi seen xam ne li fi amoon mars. ay nax kese la woon parce que lan lan mooy yow lu nekk nga yàq ko Macky Sall Ousmane Sonko toog ne Macky Sall moom moo baax mais ñi muy wax ak war nañ nekk nit yow lu ne nga yàq ko Macky Sall nga xëy na ñu Macky Sall moom moo baax ñu rey fi ay doomu jàmbur ñaan lan ay loolu si bi ñu faloo ba tey ñoom bi ñu faloo rek dañoo fekk Macky Sall jël ay mesures am na yoo xam ne arrangé wu dañ ko dindi. d'accord vous voyez. dégg naa keroog euh, Ismaïla Madior Fall ci émission bu dafa may Mamadou Faye mu glissé benn affaire il paraît que ancien ministre Macky Sall am mais nee ko dénkoog dénkoog Bassirou Diomaye Faye moo tax ma ne man jusqu'à la preuve du contraire waa Alliance pour la République li bëri def nii cirque la ba peut-être am na ci koo xam ne am na chance mais il faut que mu jël son courage à deux mains. muy Ba. waaw il faut que moom euh, bon gis naa ko temps mi def tournée. mais il faut que mu ngi wër rek moom Amadou di nuyoo rek tam su ma ne APR. fu ne mu ngi fay dem di ñëw su ma ne ñëpp am na fa ay nit ñu am na fa ay patriotes. oui donc ñooñu noonu nekkoon benn bokk yaakaar. Macky mhm. Sall la. Mhm. Ah, dem ànd ak seen noonu. Mhm. ñoo war a génn dem ànd ak Amadou Ba. d' accord léegi mel ni Bougane tam ak Thierno Bocoum. oui ñooñu mën nañu incarner vrai anti système tey loolu la Bougane bëgg a expliquer peut nañu taxaw wax li lan la protocole li ñu naan protocole teeru bàyyi soo gi xaw ginnaaw teeru bàyyi soo gi xaw lan. Mm. nañu wax lan la. d' accord ñu xam ko. d' accord alors grand yaa wax léegi ba tudd turam muy MNF Maimouna Ndour Faye moom nag dafa que ma dem kër Cheikh Bara mu rayal ma xar damay wax dëgg man ko gis damay wax dëgg rek tam Cheikh Bara ci diggante tooñante Diop ak Ndiaye mu rayal ma xar may ma xaalis bi may dem ñaanal ma taal otoom ba kii sama kër deux heures di matin wàcce ma fa xam ma trois heures du matin mm-hmm. donc ba jàpp ne sama xarit la su ma juumul sax parfum bii ma tuuroo nii est-ce que du moo ma ko may ah Cheikh na la mais Cheikh Bara bàyyi tooñ <laughs> Cheikh sama sama nit tooñ nga sama nijaay El Hadj Diouf dégg sama nijaay El loolu tey mun naa ko nettali xam naa su ma ko xee maître xam ne dina ko neex wala du ko neex te que sama nijaay la rek maître ku baax ku rafet xol ñuy waxtaan mu ne ma. dafa dégg si mu animu sax moom maître. noo déggatuma ko damay damay nettali rek lii nii mu ne ma dafa bëgg a porter plainte Cheikh Bara parce que waxoon na ko xam nga mooy ko ah tons nga baal ma de ma ne Cheikh daf ma def xarit comme daf ma def xarit nag mënoon da nga koy porter plainte ma saytaan mm. boo may léegi ma daw këram man may bindal sama bopp démenti bi nii mu baalu la. Mm. ñu signé ko léegi génne ko ci presse bi. Mm. maître xam xol bi dafa rafet. bi ñuy wax noonu mu ne ma moom njabootam ñoo ko ne bu mu def loolu bu mu ko baal mais mu mënu xam nga maître mënul def nit lu métti boo ko xamee après maître baal ko ba jëmmi jamono Cheikh Bara ñu jàpp ko ci leneen après dama maître kii nu mu tëddee benn jour ñuy waxtaan mu ne ma Thierno yow yaa taxoon ma baal Cheikh baar nee na man maa tax donc te pourtant waxuma ko sax mu ne ma li ma ñaanoon moo tax ma may la ma baal ko Cheikh baar kenn ñëpp kenn kaa tooñ bu tey nga joteeg Cheikh Yérim Seck bu subaa nga joteeg Mbaye Modou Faye bu subaa nga joteeg maître El Hadj Diouf keroog Thierno mu baax mi ni ku baax. dégg nga attaqué nga ko benn jigéen boole naa la ak moom yow mii yow yow Cheikh Bara woo na la ne la nga bàyyi Thierno Alassane Sall parce que Thierno tam nit ku baax la kooku da ngay defee sax wala yu la Thierno Alassane Sall maa ngi koy nuyu au passage donc vraiment Cheikh Bara njaayeen nga mais bàyyil tooñ nag bàyyil tooñ may moon dul fay jigéen la musuma ko gis musuma ko gis presque xaw ma xaw ma ko mais kuy daan dooleem la dégg nga man may moon dul fay xaw ma lu ko di ngi di reproché parce que man je suis très épris de ces plateaux Maimouna journaliste la bu mel ni yow dafa am prestance bu kii profondeur d'esprit boo xam ne ay relance moo garaaw mais Maimouna ñëpp lay interview El Malick man lu ëpp porte-parole Pastef ci Maimouna laa ko daan seetaane Birame Souleye Diop le président Bassirou Diomaye Faye même lu mu dee dee gis naa Maimouna Ndour Faye interview ko deux fois à chaque fois moom elle observe une réalité axiologique par rapport au camp mm-hmm. donc xam nga ñoom lan lañ koy reprocher mais xam nga réew mi penn dafa am lu am na ñoo xam ne vraiment man feebaru xol bi ñu am. Ah. dañoo soxla bëgguñ koy réussir. grand Thierno bëggoon naa ñu wéyal waxtaan bi yow xam nga ni saa yu ma jënoo ak yow. dañu bàyyi mm-hmm. bu ñëpp yi mu kii nu mu am na ñuy gëdd seen cër. d' accord voilà na la ko. alors grand Thierno ça plaisir comme toujours. man nag nee naa leen nag Sénégal set nag il faut ma xuloog ñoom sama émission ak grand Thierno day leen yaatal temps bi parce que dafay xat li ñu war a waxtaanee. yëpp du xat mais

nga nga bañ ma wax ci. Mhm. tant qu'il existera sur terre. Mhm. je donnerai mon opinion sur lui. parce que bi may joxe sama opinion. Mhm. ku xam Pape kenn xamu ko bi may xam ñu may di wax sama xalaat ñu may jàpp di dóor futti li ma li ma daj Pape daf ko daj. d' accord li may nekk xale lycée wala yooyu. d' accord ah, ay nit ñoo may tey wax sama xalaat. damay wax ba géej gi fer loolu bu yeboo ngeen préparé lu mu leen jaral dina ma ko jaral parce que kalpe lu mu jarale addu kalpe bu ko jaree borom kalpe kalpe du dem lu leer laa la wax <laughs> Grand Thierno mu bëri histoire nag donc Grand Thierno di la di la remercier bu baax a baax si wuy si bi nga wuy suñu invitation yow mu kër gi sa kër la donc dañuy am mbégte wu rëy saa su ne seek ak yow émission laaj la sa xalaat euh, également nga joxe ko donc di remercier également tuuti ci liggéey bu am solo bi di leen jox euh, dig daje ci yeneen i plateau jërë